sa bor moom réer la mu la fi nekk mooy sabal yàlla rek sabal yàlla incha daaw dafa neexoon baat ba jàggi dayo bu la sàmbal borom bi borom xam-xam yi nga xam ne ñu bokkoon moom jamono ñëpp koy topp ci gannaawam ñëpp ci gannaawam nit ñi mbooloo yi ci gannaaw borom xam-xam yi yi ñëw ci gannaaw nit ñi seytaan yi ci gannaaw jinne yi daaba yi ñëw ñuy sàbbal ñëpp di sàbbal ñëpp sambal sampal bata ba mu neexon jàgg na dayo dafa am benn bis abu musa al asri abu musa ku neex baat la euh, di jang al qur'an ci guddii bat bi neex lol bamu xeye ni yonent bi mu ko abu musa sun jang bing mi de yéem na man yow de suñu borom jox ne la ci mismaari daawuda yi ba daawuda bu neex ba daal suñu borom xajal ñel la ci mu ne ko yow yàlla yàlla yónni bu ma yëgoon ne yaa ngi may déglu ma gën koo neexal ma gën koo neexal moo tax mu ni ba daru sili gannaaw yónnent yi wa kaa nekk na mu allahu yàlla azizan ku not ci nguuram hakiman da koo xam ne ku xarañ la mu ku xarañ la dañoo waxoon yonent bi ne ko d'accord ñu yonent nga yàlla ne ko man sedd naa yonent nga man sedd naa ko moo tax walakinnillaahu walakinnillaahu lakin bii saddawuñ ko moo tax allah bi kenn du ko nasab bu ko dëgg ne lakin na ku ne nekk lisimu làkkin bi waaye làkkin ñi laahu ngay wax wante yàlla yesu dina mu seede ci sa nubboo bi bi ma ansala la wàccee ne ko lekk ci yow ansala wàccee ne ko bi almi ci xam-xamam ne yaa ko yelloo wal malaa'ikatu malaaka yi yashhaduuna dañu seede ko wa kafaa dina billaahi jal sayyidan aji seede borom bi ne innal lazina gaa ñi nga xam ne kafaroo dañuy weddi yàlla wa saddoo ñu wañu jaami yàlla yi an sabiilillaahi wala yoonu yàlla wi wa qad dalloo sànk nañu dalaalan ba'iidan cànk te koo xam ne gu dëgg la innal lazina kafaroo ñi weddi nañu yàlla wa salamoo ñu tooñ seen bopp dañu yëkku nekkul allahu yàlla li yaqtuloo ngir na leen jéggal rek déedéet ولا ليديهم تاغي نلين غيندي تاريخا او يون اه من اه الى تاريخ جهنم نار يون سفر قال ني وي بيل في اجي تبروا بولا من ابدا فوق وكان نيك مسالك دون الله تي يالا يتر نيك لو خامني دي جابو نيلن يا ايها الناس اي نيت ني ين وا مكه المكرمه قد جاكم ني ونيلن قد جاكم رسول ينتبي صلى الله عليه وسلم بلاقي تم ني اندك دغ بو خامني من ربكم موي توكي سي مبروم فاامنو نين گم خيرا مو گن لكم نيلن وان تكفرون ني ودي فان الله سخنا نيال يالا ما في سما وات نيك سما جوم نيار يب wal ardi ak suuf si wa kaana nekk na allah yàlla aliman daa yaay xam mbindeefam yi xakiman da ko xarañ ci jëfam du jum du jaawale borom bi ne yaa ahlal kitaab yi yéen ñooñ téere yéen borom leen diil laa tax loo bu leen tengal fi diinikum seen diina wala taqulu ala bu leen yàlla wax yàlla ilal xaq lu muy dëgg bu leen tengal naan isa yàlla la jàggi dayole bu leen ko def inamal masihu xamal ne isa isa nu mariama rasulullah ndawal yàlla la wa kalimatu kaddu la koo xam ne alqa sànni ne ko ilaa mariama ci mariam ruuhu mu nekk koo xam ne borom ruuhu la ñu tukkee ci moom léegi waruhum minhu bii nag moo tax gaa yi nekkoon Isa dafa nekk doomu yàlla ndax mu ne waruhum minhu dafa tukkee ci moom te xam ne idaafa bi idaafa su tasrif la te it bi nekkut minu tabi'at déedéet minu tabi'at moo tax ñoom ñu déclaré ne Isa doomu yàlla la du doomu yàlla dañoo juum te nanguñ juum nañu duñ ko nangoon rek jàmm am euh, dafa am benn jamono ci jamono rachid buur la won ku bax la won ben nasaraan boo xam docteur la ku am xam-xam ku ñaw a ñaw ñu tok ci Rachid di waxtaan ak mom dina waxtaan ak moom fekk am ko fe ku Ali ibn Hasan al-Waqidi legi bi ne euh amna ci seen bu ñu isa Esa bu boo ci yalla xale bi jógee ci yalla mu ne ko foko tek mu ne ko suñu borom moo ne waruhum minhu kon na loolu wax ne kon alquran na ko wax mu ngi seen téere bi kon isa jusun minallaahi jusun minallaahi fekk alwaaqidi bu doon xam-xam la ku rafet xam-xam mu ne ku rachid bàyyi maa moom bu dee loolu la kon lépp yàlla la jógee bon lépp xali ci yàlla mu ne waaqidi foo ko teg donc yàlla mu ne wa saqar lakum maa fi samaawaati wa ma fi ardi jamii'an minhu jamii'an minhu yàlla wax suñu borom mu ne maa tàggat asamaan ak suuf ak li ñu bu yëpp fu mu jógee mu ne jëmmi aminu lépp jógee ci moom kon lépp xajli ci yàlla wax di kontaan resi kontaan jox wax di may gu bare bare bare waaj tuub moo tax jàng xuloo jaru ko mais jàng tontu moom jar na ko xuloo jarul jàng mais tontu moom jar na laxas jàng lii nag mooy mantiq mantiq xam nga daf ne Isa bon ruuxu la xam nga li ci mantiq wax da nga jël natija bi natija bi dafa am ñu wax natija masalan tey bu bu ni yi ne alxalamu qadimun alxalamu qadim monde bi dafa nekk loo xam ne kenn bindu ko qadim la léegi boo ne leen monde bi duwul qadim du doo leen mën a daane xam nga lay wax alxalam mutaqayyirun moo dem day sensé ñu ne waaw d'accord nañ ci nga ne wa kullu mutaqayyirin xaadisun wala kullu mutaqayyirin xaadisun lépp lu sensé dafa sosu ñu ne waaw kon la mooy ñetti jaba alxalamu xaadisun mooy ñetti jaba waaye boo defee directement rek alxalamu xaadisun mukk duñ ko nangu waaye al alamu ñu ne anglais mutaqayyirun ñu d' accord alamu mutaqayyir day tàng day sedd d' accord nañ ci mutaqayyir dana ko kullu mutaqayyirin xaadisun lépp luy changé nag dafa sos ñu d' accord nañ kon nag al alamu nga jël mubtada mubtada ba al alamu xaadisun léegi nag mu ne kon esa ruun minu la wax kon esa lu am loxo dañ te toggale da nga am loxo am tànk am bët am nopp nga ne kon nag ku am lii mu def nga jeex na yàlla loolu <laughs> kooku mooy natiija bi moo tax borom bi nii fa amino gëm leen bilaay ci yàlla rasul yi ak yonentaam yi wala te ko bëleen wax mukk nag salaasatun Isa ñett la mu ñettal yàlla yi kay dafa ñu ne Isa yàlla la yaayam yàlla la borom bi yàlla la am ñu ne déedéet Isa doomu yàlla la rek in toxoon na ngeen daytalu moo gën la ñeel leen na ngeen daytalu te ñëw moo gën ñeel leen innama laaw xamal ne yàlla ilaan buur la waaye dun ba da benn subhaanahu wa tuddam ak sellam borom bi an yi kon mu nekk loo ñeel ko wala dun doom loo sax na ñeel borom bi subhaanahu wa taala maa fi samawaati lépp lu nekk ci asamaan juróom-ñaar wa maa fi ardi ak lépp loo xam ne nekk na ci suuf wa kafaa dina aji seede borom bi ne lan yestan kifa du jomm du jomm mukk nag almasihu yénti yàlla nekk abdan di jaam li laay wala malaayka du caagee malaayka yi al muqarrabuuna jege seen borom déedéet te wa man yastankif koo xam ne jomm na mu an yabaditi wala si jaamu yàlla wa yastakbir mu rëy rëylu wa yastakbir mu rëy rëylu fa say yaazurum dina pang ci moom jëmeen bi ñu dee mbooloo borom dina leen pang leen fa amal lesiina gaa ñi xam ne amonoo gëm nañ wa amiloo yi te ñu jëf leen juróom seen fay borom bi dem way nga ñu borom bi ne wa amal lesiina tankafu ñi nga ne dañoo jomu bañ a jaamu yàlla wax takbaroo ñu rëy rëylu fa yu'azibuhum dana leen bëggal moom borom asal bëggal xam ne aliman aji métti la wala borom ne walaa ji doon du ñu am lahum sax na ñeele min dooni laa walis yàlla wala yan kenn aji méngoo buy defak bëgg borom bi wala nasiran tàgn aji dimbale yaa ayyuhan naasu ay yéen nit ñi qad jaakum ñëwoon na leen burhanun lay wuleer nañu woo xam ne min rabbikum ko tukkee seen borom wansal naa wàccee nu ñaa ilaykum ci yéen nooru mu binan leer gu leer nañ karim fa amal lasina amanu daal gaa ñi nga xam gumboo ci moom mu faddalee ak goo xam ci moom la tukkee bu yee dem gënne leen ilay jëmee ci moom siraatal mustaqiman yoon wax ne dafa coow te mooy yoonu islam bi mu ne dañu sàkku laa ubbeeku laaj ci kan fil kalaalati ci kalaala kan mooy kalaala waxoon nañ ko ci gannaaw ci buntu saaro xul waxal ne allah yàlla yëfti ku ma leen di ubbi fil kalaalati ci kalaala ba tey foofu tanaason la ñoom ñaar ñëpp tanaason la yastatunaka fil kalaalati yutikum fil kalaalati inimru on dem as halaka faatana letti du ko ñeel wala doon doom caageen baay xalaa noonu wala ñu ko oxtun mel mbokk mu jigéen bokk ndeeg bàyyi wala bokk bàyyi falaa ñeel ne ko moom uxtu ba nit fu ma talaka di wàllu mu bàyyi woo mu fay bu dee mooy mbokk mu bokkal nag ndeeg bàyyi te góor wala bàyyi dong yéru saa moo koy doon lépp moo koy doon lépp borom bi ne lim yokk nekkul laa ñeel ko nag wala du doom fekkee amul doom fa in kaana ndem fi in kaana tarakay ndem nekk nañu ñoom ñaari mbokk ya is na tey ni di ñaar bu dee dañoo nekk ñaar wala lu ëpp ñaar dem ñett folu ma sax na ñeele saani ñaar sulutu ya ma tarak ci la bàyyi ne ko fa in kaana nekk nañu ixwatan di ay mbokk li jaalan di ay góor bu gisaan ak ay jigéen kon fa li sakk sax ñeel góor mislu hasil unsayni kem ñaari cëri jigéen yubayyin laahu dina leeral yàlla lakum ñeen leen ngin lan ante dilo ngeen bañ a jàng walaahu yàlla alimu aji xam lépp ku sëyin lépp lu mën a doon surat nisaa yi foofu la suratul maidati muy saaru table gi saar mu wàcc ma dina mën a war a lu may aaya yu néew mu ngi nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar wala ñett saar wi saar wi nag bi wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ni saxaaba yi suratul maidati saar yi mujj wàcc ci la bokk saar yi mujj wàcc ci la bokk na ngeen daganal li mu daganal ngeen xaraamal li mu xaraamal dara du ko dara dootu ko loolu wax saaba yi borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi nga xam ne way gëm ngeen aw foo matal leen bu la xool ji pas-pas yi muy na ma ci kóllëre yi nag kóllëre yi la ci nam léegi nag borom xam-xam ne ñoom ñeenti yëf la sa pas-pas na wér jullit de pas-pasam day wér na nga am décision na am décision bul yox yoxi

te teddiñ tere nag afo bi loo xool mu ne uxilat daga na leef na lekkum tax ñeexeel leen bahimatul an'am yi juri kër yi yenti yenti yi giléem nag xar ak bëy bahimatul an'am yi bahimatul an'am yi dagal nañ baax yi may foofu nag ngay jàngee al idaafatu bi maanaam min bu dul loolu yëppay dagan bu loolu yëppay dagan bay wutul anhaam yi mu ngi mel ne nga ne baabu saajin wala nga ne xaatamu xaddiidin jaaru weñ gu ñuul weñ gu ñuul yëpp mënu nekk benn jaaru kooku mu idaaf bi maanaam min xaatamun xaddiidin baabun min saajin kon bahimatun min al anhaami yenn yaa dagan waaye bu ne bahimatul anhaami rek kon lépp léppay dugg te fa daganul mbaam daganul ci mu bokk ci anam borom bi ne illa ma yutla ndax def koy jàng alayhim ci ñoom aleykum ci yéen borom bi ne xayra muhili saydi bu ngeen nekk di way dagal na rëbb waa tum teen hurumun ngi di way armal ku armal aj rek rëbb daaraam na ci yow laa borom bi yàqu bi dal ma atma yuridu lu ko neex ca daganal te kenn du ko alaamal yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi nga xam ne way gëm ngeen laa tuhillu bu leen daganal saa ilallaayi mandargaay dina yàlla yi mu araamal bu leen ko daganal mukk nag rëbb ci wurum ba wala armal di rëbb fa mu nekk daganul wala saral xaraama caagin weer nga xam ne kuñ araamal ci xeex bu leen ko daganal wala hadiya caagin hadiya bu leen daganal di leen gàllankoor di leen rey déedéet daganut wala xalaayida caagin caq koy takkal bu ñuy takkal hadiya yi bu leen dagg bu leen dagg wala amina bu leen daganal di gàllankoor aji jublu amina mooy aji jublu albaytal xaraama ca kaaba ga di ko agrété di ko jéem a jël la mu amee bu leen ko daganal moo tax yéen toqale ngeen di euh, sàkku nag fa da leen goo xam ne mer bi mu seen borom rul waane ak ngërmande wante fu sa alaltum dem nga xam ne xeeweeku ngeen xeeweeku ngeen fastaatu ngeen rëbb wala yajrimannakum mu leen fàggandekuloo san aanu daga na wala san aanu xawmin mbañeelu aw nit anta dookum ngeen di leen wàññi anil masjidil haraam wala jàkk ji ñu wax ma di muy kaaba ga anta dookum ngeen jalgati di rey koo xam ne waru leen ko rey bu ne boo taawunu na ngeen dimbalante alal birri ci mbaax wa argal yàlla ولا تعاونوا بولين ديمبلان ديمو كونك على ديمي تي بكار وون دواني اك نونا واتقوا الله رك لين يالا نلا بروم بي سدو لقابي كو تان بوغال لي نيو خامني ودي نيو ووتك موم حرمت لبنا عليكم تي نعم الميتتو ميد ييب ارام نكو نيوم ودام اك جين بوفولي بروم ولا حمل قنجيري ياب مبام وما احل لي بلو تاكفنا نعم. بي تي موم لخيلا نيان دول يالا بسم الله تولي من نونو ارامنا بروم ول من قنقتو غاتو بو خجو borom bi ne boobu dee araam na ndax reen mu dee reen mu dee la wala moo xosatu gàtt buñ jàm wala ñu dóor ko ba yegg ci reen mu dee mu dee ba boobu araam na wala mu tara diitu gàtt boo ca kaw daanu ci suuf ree ci reen mu dee reen mu dee araam na na tiyaatu gàtt buñ jam moo xam ne nga ko jam wala koj biir ba mu yegg ci mu dee reen mu dee borom bi ne boobu araam na ba may akala sabon ak boo xam ne dog menti ko lekk tilli yi ko lekk ba yegg ci reen mu dee reen mu dee araam na mu ne a ma sakkaytum nag dana ngeen dab ak reen dam ak reen dam te yegguñ ci loolu yegguñ ci reen mu dee reen mu dee kon loolu moom araamul moo tax illaa bi muttasil la naa bi dafa nekk muttasil maanaam yi yi ñu araamal nii am na yu dagal bu fekkee dafa nekk mun xattee rek xam nga li muy teg kon lépp loo re lépp loo xam ne rendu loo xam ne rendoo ko rek dégg wax bi de la ma sakaytu lépp loo xam ne dafa feebar rek kon day mujj araam la ma sakaytu nar li ngeen rendi nar li rendi kon yi araam nii bu fekkee yeggul bu fekkee yeggul ci réew mu dee réew mu dee kon dagan na loolu la ñu am au moins su biha loo def na ko xala nu si bi ngir xërëm ya mooy tuur mooy tuur dafa araam lépp lu ne ngir xërëm araam na akil wa an tastaxzimu ak ngeen di sàkkoo séddale ko te aslam ci zulam ya saalikum seen yëpp fisqun ngeen topp la kàccoor la léegi arab yi dañoo amoon juróom-ñaari kopp yu ñu ci dóoyee ñu yemoon nag bi ñu ci bind amara ni rëbb yi dañ bind ci benn ba bi ñu bind ci naxaa nii rëbb yi moo borom na beneen bi bind ci minkum beneen ba min xayrikum beneen ba mulsaqul beneen ba alxaqulu beneen ba xaflun mu juróom-ñaar léegi nag bu fekkee dafa am lu xew seen diggante dañu dem ci xubal turam gu mag ga fa la ñu defee bant ya bu dee dafa dafa bëgg a tukki mu waa ji day dem ci xubal dugal bant yi ci biir place bi bu génnee mu ne amar ni rëbb yi fa borom digal na ma mu ne ko yoon wi dina baax mu dem day dem bu génnee naxaa ni rëbb yi mu ne du baax soo borom tere na ma dafay toog dafay toog dafay toog fekkee dafa am xale bu juddu ñu wute ci ñoomu neen ci giir sàngam la bokk bokk ci giir sàngam dañuy dem ci sulam ya bu génnee ne min min kum bokk ñu nangu ko bu ne min xayri kum ko nangu duñ ko nangu bu génnee nag mu saxul rek dañ ko bàyyi na mel bu dee xëccoo diyee la dañoo xëccoo diyee diwa ko rey dafa war a joxe diyee diw na reyu ma ko dañuy dem ci bant ya bu génnee alxaqlu ñu ne kon diw yow la déeb yaa ko war a joxe bu génnee xaflu nag koorul kenn yooyu lay jàngale mooy sulam yi léegi islaam ñu waayee ko nag ne loolu carte baaxul dafa araam dafa araam xërëm la parce que aleykum seen loolu génn topp la baaxul al yawma te yaisa borom bi ne xaddi na mu si ne kafaroo ñëwee di mi diinikum tukkee ci seen diine yi mooy mutta nañu delloo nañ gannaaw delloo nañ gannaaw fala tax suhum bu leen ragal waxtuñ ragal leen ma al yow ma tey jii nag ak maltu borom bi ne matal naa lakum ñeel leen diine ko seen diine ji wala mantu ba tey matal naa lakum ci yéen ni ma ci sama xéwal gi bi ay wàccee nag Seydina Umar bun dafa jooy jooy yu métti métti métti lan moo la jooyloo mag mu toll ni yow looy jooy mu ne ko lu mat rek commencé wàññeeku ay bi tàgge na la yéen tamit ne ko wax nga dëgg doom wax wax nga dëgg de wax nga dëgg de nga dëgg de benn yahut ne Seydina am na ci seen téere bi day ay boo xam ne bu du ñun yahut la dañ ko defal feet dañ ko defal feet mën na ko ban aaya la moo ko aaya ne ko aaya bi day xam naa fa mu wàccee ak ban bés la xam naa ko mu ne ko xam nga fan la wàcce woon mu ne ko ne ko ca arafa la wàccoon bisu àjjuma la woon gannaaw takkusaan ca arafa la wàccoon bisu àjjuma gannaaw takkusaan amul ko ma tontu wan na ko ne ñun ñun ñu ngi koy feetal ndax xam nga arafa juróom-ñeenti fan la ba si tabaski si daa ma tontu na ko te waa ji ne ma tontu na ko ne ñun xam nañ fan la wàccoon ak kañ la wàcc nga wàcc ca arafa ci takkusaan bisu àjjuma la woon kon ñun àjjuma suñ feet la tabaski suñ feet la tontu na ko wala di su gërëm na mu lakum ñeel leen al islaam ay diina ji mu nekk islaam diina di seen diina moo tax mu ne war a di su gërëm naa lakum ñeel islaam diinan fa man turra koo xam ne loolu loob na ko fi max ma setin ci xiibu métti métti métti mu nekk ci njot bakkan bu lekku dee xëy na mu ta jaane fi du ma jeng li min jëm ci bakkaar borom bi ne kooku dee mën lekk médd du jàm benn bakkaar min la borom bi xawru njéggal ay kon la te lamu lek lekk ajiram le ko mu ne ko nak yasalu la ko dañu la laaju Muhammad ma saa ila mo la moo dagan loom ñee leen ci ñam yi kul ne leen ahal la dagan na no uhi na dagan na leef na dukum ñee leen a yu teey yi huma allamtum ak lépp lo xamne ne yeneen ko jàngal rëbb min al jawari ci muy way ko muy fàggandi ko yi moo xam xaj la wala picci la mu ne mukallibiina ngi di way xital leen nak xital leen wax bismillah mooy mukallibiina كتلم بفتح نوبي وح بسم الله ما تعلمون تعلمونهن من قمل لينك بما علمكم الله جل جلاله قمل وانت بدي قلب قم لك ويبال وح بسم الله نجاب دعوت يوم كيبال دعوت بسم الله تهينك دفع مين تزارت قلب بكون دمال داي دم بكون تخوال دفع تخوال بجاب بدي فكوي تبون جلك jibeen ci benn manqué rek day dog dafay araam bu ci day araam da dàq mu dem nga jàjj mu taxaw bu jàppee du ko lekk moo tax mu dafa koloore ngay lekk mi ma am sag na la mu jàpp aleykum ci yéen dégg nga ko de jàpp na ko màtt ko jañ-jañ ba soroon mu teg ko doonte médd na dagan na wax nga bisimilah yaa <laughs> donte médd na donte rey na ko moo ko rey ah xam na donte mën a rendoo ko laax donte rendoo ko da nga na nga lekk ko waaye bu fekkee nga xam ne bu mu yegg ci nag mu ngi noyyi boo ko renduwul moom daganut wante boo ko yebalee mu dem dàq rab wi fàddu ko jàpp ko di la ko andil bu fardee ci ci yoon wi islaam d'accord na mën nga lekk dafa kuloo mi maa am sag na aleykum ko lam téye lam téye moo tax ne ñeenti sart yi foog mu am ñeenti sart yi ñeenti yi da xaj boo xam ne boo ko trop mu départ boo ne kuri mu ñew na ko teye te buñ ko lekk bu ci benn manqué rek doo ko laal bu ñu fuñ jëm allahu akbar <laughs> su yenn ko ci dàq rek mu dem amul bismillah mu dara amul dara borom bi ni watkuru na ngeen euh, fàttaleku bismillah tur yàlla xale yi ca dàq ga mooy bismillah bismillah mooy bismillah jibril dafa ñëw ci yonent bi taxaw ci bunt bi taxaw ci bunt bi yonent bi nag ah ku ma sa gis loolu gan gu ñëw ñu ne bismillah nga bañ a yegg gan kay bu ñu ko bismillah dafay dugg mu ne ko ñun malaayka néeg bu am xaj duñ ci dugg ñun malaayka néeg bu am xaj duñ ci dugg duñ ci dugg yonent bi wootee ne nañ reqa yi nekk Madina mën a war yépp wala maase bombardé gaa yi rey yëpp mu des benn xaj bu ne ci benn màggat ñu yore màggat sa bàyyi ko fa ba ñu wax ko bi mu ne leen ngeen rey ko ñu rey xaj ba suñu borom nag ñetti xaj dagan ñetti xaj xaj boo xam ne dafay rëbb xaj bi sàmm gàtt ak bi wattu kër dagan na kalbul baadiyati kalbul maasiyati kalbul saydi ñetti islaam gërëm na ko kalbul baadiyati dëkk àll yi xam nga yu bari du am buntu xaj bu fa nekk nag fekk ay ay juro fa nekk mooy sàmm jur yi ya, di wattu jur yi ya. wala xaj buy rëbbi de borom di ci indi di jox njabootam wala xaj buy sàmmi dagan na kalbul baadiyati kalbul masiyati kalbul sayb yooyu sax d'accord na wa taqola na ngeen ragal yàlla ina laa naka borom bi sariwul isaabi ko gaaw ci réglé la al yawma tey uhilla daga na na lakum ñeel leen yu teey yi wa taamul lazina borom bi ne ñëw gaa ñi nga xam ni mu ta joxem ne lan ak kitaaba téere yañ na mu moo tax yi lu dagan mu la kom ñeel leen wa taama seen ñam yéen i tamit yi lu dagan na loom ñeel leen wala mosa naatu way sange wayi ne moom mu naati tukka juju lin ñi dagan na ngeen takk leen wala mosa naatu ak way sange yi mën na li seen odol ne leen téere min xalikum leen jiitoon dagan ngeen takk leen takk na saraan ak yowoon borom bi ne dagan na waaye nag isa atee jox ngeen leen ujóoroo seen can yeef borom bi ne moxsi nii na ngeen di way wala nekk bu seen ndox ci leen fo wala mu taq si yàqdanin fay ngeen di jàpp ay ndiig mooy li xam ne mooy far daganut wa man yàkk buur ku weddina mu bil imaan yi gannaaw bu gëmee mu tànn faqat habita maa bon ma amalu woo jëfam ja woo borom bi ne fil aaxir yawmal qiyaamati minal xaasiriina bokk na ci way perte ya yaa ayyuhal lazina aamanu yéen way ngëm yi idaa qumtum dem jonge ila salaati jëm ci julli fekk yéen a ngi tojle borom bi ne faxsiloo wujuuhakum da ngeen raxas seen seen may la njàpp ngi noonu wa aydikum aydiyakum ak seen loxo yi ilal maraafiqi bi ci cooñ ci yéen masal leen seen ruusikum seen bopp ya wa arjulakum ak seen tànk ya yaa ngi ko ataf ca aydiyakum nag boo ko nasabee wa arjulakum boo ko jaree nag muy xatful mujaawara ngir dëkkaale rek ila kàbbee ni jëm ca dojoor ya wa in kuntum junuban ne nekk ngeen di borom janaaba fa taharoo na ngeen laab mooy na ngeen sangu wa in kuntum dem nekk ngeen mar daa di way feebar te ñëmu leen ndox mi aw ala safarin wala ngeen tukki amu leen ndox aw jaa wala mu ñëw ahadun kenn min kum tukkee ci yéen min xaayati boo ca toilette ba aw lamastumun nisaa wala ngeen laalanteeg jigéen ñi wala mu tajidoo amul leen maa ndox kon fa te yem moomu na ngeen tiim ci kaw lan sayedan mooy na ngeen jublu mooy na ngeen tiim sayedan ba place boo xam ne te yiban dafa nekk bu set bu teey fam soo na ngeen mësaw bu jooykum seen cëlmaa ya wa ay diiku ak seen loxo ya min hu tukkee ci dóor ya ngeen di dóor borom bi ne maa ngi lu bëggun allahu yàlla dañu xale ngir mu def aleykum yéen min harajin benn xat-xat bu amul ndox na nga tiim walakin yu bëgg na mu yu tahirukum ngir mu laabal leen ci toj ga wala yutima ak inn matal nii ma doo xiwalam nga aleykum ci yéen la aleykum ndax kon yéen tasukuroona ngeen sant yàlla wat kuroo fàttaleku leen ni matalaay xiwal yàlla aleykum ci moom aleykum ci yéen u mi saaqo ak koloran gi nga xam ne waa saxakum bii kolorante na yéen is kultum bu ngeen waxee ñeel yonent bi da jaayanteeg moom ba ngeen di jaa ngeen dibi sallallahu ngeen wax naan sami naa dégg nañu sa ndigal waxta naa topp nañ ko it nag lépp loo digle nañ ko def loo bàyyi loo tere nañ ko bàyyi wa taqulla na ngeen ragal yàlla ci ko lërëga ñu laa borom bi ali wax yàqam la bi saa si dóori da ci biir dënn yàqam ne ko yaa yo lesina mënoo yéen ñi nga xam ne way gëm ngeen kon na ngeen nekk xawaamina da way taxaw temm lilaay yàlla su ngeen wése bil xisti bii ak bi ñu woon benn la ay bi ñu tàmbale woon mhm. mu ne walaa yajrimannakum bu mu len leen ndekulo shanaanu qawmin mbajalu aw nit mu yefal ya bu len leen ndekulo ala an la tahdilu ngeen bañu mandu da ngeen mandu rek ay dilo mandu len wo mu mandu ga akal bu mo gën jigen fuf fuuf di taqawaa ñee yàlla wa taqoo rek len yàlla inna la naka borom bi qabirun ko xamle le bi ma taxamuloon li ngeen di jëf da len ko fay wa hada dëxal namu allah yàlla da si na amonoo ñu gëm yàlla wa hamilu salati te ñuy jëf lu bax mu dehal len aljana motax lu mu sax na len maxluutin jégal goo xam ne gu boo ci borom bi la wa ajrun azimun ak pay gu màgg mooy aljana wala si ne gaañ nga xam ne kafaroo dañoo weddi bu kasa boobu bi ayatina weddi si alquran jii walaayka ñooñu kat bu laajte ñoom asxaabul jahimi waa safaraa ngi yaa ayyuhaa llaziina aamanu yéen yi udkuruu fàttaliku leen ni'mata llaahi xéwal yàlla gi aleykum ci yéen it xam ma bay tëlee na xaw mun aw nit wax jàngoon nañ ko xarab bu naar bi ba bëgg songu yonent bi jaasi ja wadd yonent bi téye jaasi ja moom lay baamaat foofu isama yi te na xamul aw nit an yab sutoo ñu talal seen loxe ilaykum jëm ci yéen mu ngi ne ay di yoom seen loxo ya fa kaffa fek na mu moom borom bi ay di yoom seen loxo ya an ku mu def leen wa taqulla ragal leen yàlla wax la ci yàlla do nga fa la na ci ngoy na ci wëru al moom na way gëm yi borom bi wala qad aqasa jël na mu allahu subhanahu wa taala misakh bani israila ku la reg bani israila borom bi moko jël wa basna ñoy ñoo yónni minum tukkee ñom ñoom isnay asara naqiban fuk ñaar ci ay nuqaba nuqaba naqib mu ngi mel ni nga ne euh, sayqu wala muqaddam rek mu neex dégg xam nga li muy junj xisa bu day war la nag waaye xam nga euh, booy jàng jàngal rek boo jàngee ba xam ne nga xool li wér ak li wérul nga teg na le comme ni ko borom ma xam waxee mel ne kuy taxan guddi rek kuy taxan guddi xam nga booy taxan guddi yow xamuloo matt gi matt ak lan la da ngay taxan di dajale rek boo xëyee nag ba xam matt yi baax ak yi baaxul nga segg ba booy jàng jëlal rek moo tax li ci bëgg a wax nii dafa am ñu ci d'accordul moo tax dañ ne amut am ñu ne am na siiw na nag siiw na ne am na euh, yonent la Moussa bi mu gañee na ba ñëw Misra suñu borom moo ko digal ne ko demal Ariha dëkk suuf la ca saam amna na fu ñuy wax al jababira al kanani yon ñëw dekk borom ne ko bo deme ma la jox suuf sa na ngeen fa sax nek len fa na ngeen genn ña fa nekk nag man ma la di dimbale te Moussa da nga wut nak fukk ak ñaar ci ay nok ay ay naqib man ngir bu nekk ut ca ben benn njiit benn njiit góor gu nek xoolal ku ak ko am kóolute ku deggu ku yewu nga def ko mu nekk njiit ca ngir googale ngir matal kóllëre gi mu tànn mu Moussa nuqabaa yi mu fukk ak ñaar léegi mu ne Bani Israël nag eh, fas naa yéen kóllëre li mu leen sant ngeen def ko lu mu leen tere ngeen bàyyi ko gars yi ko d'accord nañ ko Moussa départ ànd ak ñoom ne leen nag bu ñu demee lu ngeen gis bu leen wax bu kenn nettali bu kenn nettali lu ngeen gis rek bu kenn nettali ba dee ba jub kan suufu kanaan mu ne Moussa kon yéen Moussa ne yéen nuqabaaw yi dem leen ngeen def wisit ba ñu xam seen biir bala ñuy dugg ndax bu fu ñuy jaar ndax ñu gañe leen dem leen ba demee gis jëmm yoo xam ne ponkol lañu léegi te Moussa waxoon na leen ne lu ngeen gis rek noppi leen léegi nag ñu firi kóllëre ga nettali lañ gis nettali ko bani Israël ba mu des ñaar yoo xam bu noonu moom bokk bokkul bokkul ci ña waxoon moom déedéet ak kaalib ñum nopp wax ñu woon léegi nag ci biir ñañ gis nag ponkol ya dafa am ñu ni am na ku ñuy wax xewej bu na onox mooy yaayam waaye xewej moom mbégg la sant xewej xewej mbégg adama mooy baayam kii kay yaayam kay adama mooy baayam moom surtout adama la xewej surtout adama la doomu adama bu jigéen mooy yaayam hono ko ɓuuɓle ina heweji mum gudda yamba jaggine dayo dundu na ñetti junne at dundu ñetti junne at ni guddaayu eweej ba nekk na ñetti téeméeri xësëb xësëb ñetti téeméeri xësëb ak fanweeri xësëb ñetti junni laa bëgg wax ñetti junni xasab ñetti téeméer fanweer xam nga benn ñaari xasab muy mètre kon xam nga gudd na bu ba nekk ne ñetti ci ay xasab kon bu daayam ba nekk na junney mètre ak juróomi téeméeri mètre ak lu topp ñu ne moom bu bokk na ci doole te noonu la amee woon doole nag noonu la réew yi nag nee nañu bu fekkee dafa mere mere benn gox ci àdduna bi buy taw day sëgg bu dee nga ne waa penku la mere taw buy taw day sëgg bu sëggee ndox mi taw ba sebeti yim ci gannaaw gi mu sëgg waa xar foo xam ndox waa penku duñu am ndox <laughs> kooku may ewec <laughs> taw bi yëpp mooy jël ci gannaaw gi lay yem fekk na dafa mer waa penku lool mu siggi rek ndox may dem ca waxam penku ne ci bekkoom ñu ne mooy xewet ñu ne bu tiiwaan lu mu lu mu bëgg a wàcc day dëkk loxo bi jant bi rek loolu la ñu wax ko mooy xewet ñu léegi nag bi nga xamee ne Moussa yónnee nu ko bàyyi mu tase ak ñoom fekk mu ngi dem taxani xinu saa yu mat xam nga nu mu def dafa teguwaale gaa yi teguwaale jël ñëpp te ci osay bi teguwaale dem bu yegg rek ne ne jabal ji sànni ko da ko rëndee ko matul matul matul dépend rëndeel gaa yi rënd <laughs> rëndee ko kooku mooy xeewal <laughs> léegi nag ah gaa yi ñëw nettali ko ne gis nañ koo xam ne kenn xamul lan la nettali yëpp gars yi ne ko dootuñu dem lànk Moussa amuñu ko demal yow kenn ñu demul ñu muñ ko sax kooku duñ ko gis mukk si mu si yéen yàlla musaa wax gars yi ne ko demuñ kooku nag mooy xewaj mooy nekk noonu léegi am ñu ne nag euh, xewaj tur yu am waaye li wax ci jëmm ji ak guddaay bi ak baay ñu amoon nañ sa am na yoo la waaye li wax ci am ñu ne loolu amut ci xewaj waaye li ma lay wax rek jàng leen dajale rek ndax bu la xam nga dañuy dafa am lu ñuy gàddu bànqaas bu leen ko nangu gàddu bànqaas mooy toog ci place kenn benn waay jóg rek wax benn benn benn benn mbir benn masala yow gàddu ko dem di wër ak moom te xamoo fu mu cosaanoo dañ lay daane dañ lay daane mooy gàddu banqaas looy wax lu ne xamal wéeruwaay ba mus nag ba da ko xam waaye gàddu bànqaas moom baaxul wóorut wóorut moo tax yu mel nii il faut ñettali ko ndax ëllëg booy weddi nga xam li ngay weddi booy nangu nga xam la ngay nangu waaye bind nañ ko nag dégg kon bii moo nekk noonu moo tax mu ne baax naa yebal nañu lu dikkee ci ñoom ñu sa borom def nañu asara foog ñaar naqiban ci ay nuqaba wa qaala wax na mu moom ne allahu yàlla yi ñu nekk allah borom bi kay nit ñi naka man naa ko maa ngi ànd ak yéen la in aqamtumu salaata ndem taxaw ngeen julli waajatum ngeen joxe sàkkaat azaka wa amantum bi rusuli yi ngeen gëm suma yonent yi wa asatumuhum ngeen dimbale leen wa asatumullaha ngeen lebal yàlla xadar asanan bor bu rafet rafet lu okaffiranna dana ma efaataan ku wadil leen zayaatikum seen ñaaw téefiya wala udiqilannakum dana ma dugal leen jannatin ajjana yoo xam ne jëli dana daw min taratuhum anaaru ay dex fa man kafara ku weddi na mu ba salika gannaaw kóllëre gii fa xad sànq na mu dalaal sawaat sabila digg yoon wa wàcc na yoon wa borom bi ne fi bi ma naqdihim sabu seen firi ga ñu firi misaaxum seen kollëre ga laannaahum dañ leen rëbbe ñun sa borom wa jaxalnaa def nañu xulabam seen xol yi xaasitan mu aji waa kong du nooy mukk borom bi ne yu arifuna ñu ngay jëngal kalima baat ba nga xam ne ci tawraat muy mën a yonent ba ñu ngi koy saase an ma waa dañuy wali ay place am ba na sa farte nañu xasan cër ba nga xam ne matukuroo bii ci la waaree fa na leen ko te mooy la ci tawraat nañ ko topp wala tasaalu doo dañ nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te taloo di yër wala xaayindi si ci aji wuruj ñun gudd kay ci ñoom toujours dañuy firi kollëre rek bu la naqadi illaa xalilan lu mooy ñu néew minhum duggee ci ñoom faafu na nga jëlale xan wala leen wasfax na nga jéggal ne laa borom bii fi bëgg na mu al muxsinin way jëlale yeeg way bëgg na way rafetal yi bu mu ñan lesi am na ñi nga xam ne xalu nañ ni na ñàkk ñun nasaraay na ñu am nañu ñoo xam ne axas naa jël nañu maanaam a axas naa jël nañu mina lesi na xaaloo ina nasara jël nañu misaaqum seen ko lërëg comme ni ko jëlee ci bani israila ci yahudiya wadna soo fàtte nañu xasan ab cër ñi maa si guró bi ca la waareef na leen ko borom bi ne fa axra naa fa axray naa xirtal nañu tàbbal nañu bay seen diggante ala daawata ak noonu wal baxda ak mbañel ila yawmil qiyamati ca bisu taxawaay ba borom bi ne wa sawfa yunabbi'uhum sa xas na mu xamal ne allahu yàlla bima kaanoo yes noona dañ dul jëf borom bi ne yaa alal kitaab yi ee yu ñin téere xad jaaku ñëwoon na leen rasuluna suñu ndaw li muhammad sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu lakum leeral ñaa leen kasir lu bëri bi maa kuntum taxfuuna ma ko doon tofoona da nga nekkoon di ko nëbb bu ñu kitaab bi ci téere bi ci tabaraat ak linjiil te may ku mooy ñu jam la boo amee jabar boo amul jabar ñu dóor la yaa foo ñuy jéggalaan kasiiran eh, ci lu bare bare bari moom borom mu jéggale ci lu bare bare bari xat jaay ku ñu woon leen mi ne laaj tukkee fi yàlla noorun leer te mooy yeneen tibi wa kitaab ak téere boo dafa leer nañ yaa di bi dina gindi ca téere ba allahu yàlla muy gindi may tabaako tak pol mo ridwaanahu ngër maa dem nga borom bi ne subala salaami nag ay yooni jàmm waxu sa bil de suba la salaami ay yoonu jàmm xam lu mu lay jàngal ku nekk ak sa mbir fa mu nekk am na ñoo xam ne seen mbir mu ngi ci julli rek julli rek léegi yëpp dem seen boroom am ñoo xam ne dox mbokk rek dem ci seen borom am ñoo xam ne jàngal Alxuraan rek dem ci seen borom am ñoo xam ne joxe rek suba la salaam moo tax lu waay di def rek fexeel def lu mel noonu am ñoo xam ne jàngal Alxuraan rek bu dégg bëccëg bu dégg bëccëg ñoo xam ne julli rek bu dégg bëccëg ñoo xam ne joxe rek bu dégg bëccëg suba la salaat ku nekk fa yàlla def sa mbir moo tax bunt yi ñoo bari bunt yi ñoo bari suba a jàmm dama doon waxtaan benn góor kilifa la nag mu ne ma daraame ma nag mu ne ma yàlla bari bunt mu ne mu ne ma waaw kilifa la mu ne ma dafa am suma benn taalibe bu ñëw ne naa ko ñaanal mu ne ko loo soxla mu ne waa ji ne ko man daal sama waa kër sama taaw bi daal lu mu wax ñépp topp ci yàlla daf ñu juboo bëgg nga dolli ma nag bu ci seetaan mu ne waa ay yow te yaay suma man looloo ma të bunt bi moom yaa ma man bunt bii bi buntu man yaa ngi fi yaa ngi fi yàlla bëri bunt man maay sëriñam la ma njabootam yëpp juboon nañu taw lu wax ma yi def mu ne mu ne man aw ma ko man te nee man maay wasiila du nekk li de yàqin ci suma nopp bi <laughs> kon subul salaam bi salaam bi kon nag mu ngi noonu lu mat bàyyi xel la ah lu mat a a bàyyi xel la ñu yor daal di jàngale yi nag ngeen def attention ci gune yi xam ne dañuy jaar rek dem fekk pare nañ bi yàgg dañuy jaar ci yow rek. boo soxatee rek am problème boo soxoree rek dëgg laa ko warul laal man maa leen ko boo soxoree daal ko xam ne kenn du ko laal kenn du ko laal <laughs> kenn du ko laal mu ne wuyu mu génne leen mu ne sulumaat yi ci la dama kéefër ila noor jëm ci leeru gëm yàlla bi ni yii ci na mela moom borom bi wa yedi mu génne leen ila siraatin mustaqimin jëm ci yoon woo xam ne yoon wu coow la Ibrahima fii taxawukaay la de sadaqallaahu al-aziim bal rasulul kariim